voilà ndaxte dafa def erreur erreur. bu rëy si communication def na erreur dafa ne sama yaay. Mhm. jàngkat la sama bàjjan jàngkat la. Mhm. mais moom lu tax mu jël yaayam ak bàjjanam def leen référence te bàjjanam ak yaayam jëf nu ko référence moom. ndaxte bi mu demee di bëggante. Hmm. am na ku ko bëggoon sa seen koñ. bi mu demee ba siiw bëggatul kooku. ok dafa xool beneen niveau. waaye même waa ji sax am na ku mu bëggante loon parce que mënul dundu ba toll noonu xay dal ci ndaxte waay di taxoon Mia nekk ci no face maa ngi koy doog a xam parce que fu ji mii def nii yaa ngi dégg toogoon ca no no no fees xaw ma xaw ma fees. Mia dafa futtee da gis mu futtee. xaaral xaaral bi comme gisoo ko boo doful loo gis leer na la. ay ay waayam neex na de mais. futteeku mooy nit ku solul yére jimboori ñun ay olof lan dégg nañu olof tamit. non futteeku bi moom man d'accord ma ci parce que noo fees da koo lëmasoon muur ko sàng ko. kenn gisul musul gis sax poojam. bi muy sëy ngay waaw boobu baat bi rek nga daan dégg. mais moom comprendrewul ni sénégalais yi duñ déglu sax ay way taati neen lañ gën a déglu yi way. kon danga waa ji di ko takk sax benn bi saaga na famille ndaxte yëpp. lu tax ndaxte ñëwul wax ñu loolu toog ba tey di ñu ko nettali. yàlla moo ko wax mais boo leen wanantee ginnaaw bu kenn weeraate ndaxte dafa ñëw bi muy li muy nettali yëpp keroog bi ñuy pranki waa ji loolu mu nattoon bu ñu ko bàyyi woon mu dóor ko waaju ji kanam gi dee na bu yàgg. waa xam nga seen petit man man man man pour man man lu ma njëkk a jaaxal lenn la bu ñuy jël si sa doom dañuy bàyyi seeni doom ñoom seen kër. Hmm, d'accord su baaxoon ñoom seen doom lañ siy dugal li ñuy yàq si dëkk bi golo du ko yàq si toolu xaal. ñan ñooñu. seen petit gaal laa la. ok salaamaaleykum mbokk yi saxoo di seetaan authentique prod ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu ngi am mbégte bu baax jàkkaarloo yéen ci bàyyi xel bi ngeen di bàyyi xel télé bu mag bi fii ak bitim réew fépp ci Afrique rawatina Sénégal jaajëfal nañ leen bu baax yokk ngeen abonné yi. jaajëfal nañ leen tamit ci commentaire yi c'est DJ Thiat Show la présentation comme ni ngeen koy faral di waxee l'animateur du peuple te léppay ñëpp lu nekku ne ngi ci kon nag tey ñu ngi ñëw fii nga xamante ni mooy Caaroy Azir fekk fi kan ndaanaan boo xam ni doonul ku nuy présenté ci askanu Sénégal rawatina nag ci internet bi ci télé yi ci rajo yi muy kan Djimbory bu Sénégal Djimbory bu askan bi waaye jimboori bu waa kër euh, Albourakh TV wala Albourakh Events Euh, ñu dalal ko fii tey moom it mu dalal nu bu baax a baax ñu bàyyi ko mu nuyoo su paree ñu xool incha allahu taala lépp loo xamante ni actualité la ñu waxtaane ko sottante xalaat man ak yow waaye bàyyi Sénégalais ñoom tamit ku nekk indi si sa gis-gis ak sa xalaat maa ngi lay dalal di la nuyu. Mm-hmm. waaw maa ngi lay nuyu bu baax euh, di nuyu ñi nga àndal aussi euh, di rafetlu li ngeen di def parce que tamit xam nga lu caaray ba. Euh, Pikine Pikine la mm-hmm. si Pikine la bokk mm-hmm. soo leen toogee créer lii pour pikin mm-hmm. man dafay sedd suma xol parce que da ngeen indi sama yëf suñu yëf ci man xam nga kon chaîne bi naka authentique pro képp ko xam ne banlieue bi la ëmb si Pikine nga bokk sa télé la xam nga euh, wante ñu ngi ñaan wax dëgg yàlla Euh, mu gën a jëm kanam parce que lépp benn la mais tamit bay sa weewu tànk comme ça quoi ma lay nuyu bu baax nuyu sama grand Abdou Aziz Sy la Camara mbay aw mbuub xam nga ah waaw di nuyu ñi nga xam ne yéen mooy béygi wan sob bi ngeen ma fekk ni amet xam nga xam ne fi laay toog tamit ma koy gërëm bu baax xam nga waaw di gërëm ñëpp d'accord bu ñu dem bàyyi fa seen njaboot wala yal na yéex seen njaboot dem bàyyi leen fa mhm. doo mës a dégg fay nanu waxtum laak tas est-ce que mag ñu njëkk ñi niñ ko doon defee ci anam boobu xale yi jotul ñu dellu si ci anam boobu pour ñu mën a toog seen. xam nga sëy ñetti sëy moo am. ban la jëlal. Mhm. bi nga jël. Mhm. ak ki la jël yow. biñ la jëlal bi nga jël ak ki nga tànn ki la jël. ok dañ lay jël am na boo xam ne mun nañ la jël rapidement. comme gel yi xale jigéen ñi def rek ñoo bëgg la. non mun lañ la gis si télé nii ne xale bii naa ko jël comme niñ koy defee ñëw ñan ñoo jël góor ñi wala jigéen non am na jigéen ñuy gël góor ñi am na góor ñuy jël jigéen ñi dañuy gis gel bi ci tele bi ni kii naa ko jël d'accord ba pare su nit léegi day assuré day nekk ci Europe gis benn jigéen nekk fii ci senegal di génn ci benn plateforme mhm. mu assuré ni kii bu ma demee Sénégal naa ko jël mhm. lan moo tax mu assuré ni bu demee dana ko jël xam nga ko loolu loolu loolu déedéet dama lay bàyyi nga yeggale parce que xam na ni xaalis moo dox fii xaalis moo am kàddu mooy wax. kon da nga bëgg a wax ni su ma la déggee dafa mel ne jigéenu Sénégal da nga bëgg wax ni kon dañ leen di jëndee xaalis. noo xam nga tey xaalis moo dox ci lépp su si kanam tuuti dina gën a feeñ dinaa la gën a waxtaanal si loolu parce que tey le mot kii damay dem jël ko xam nga jabar bi nga biñ bu njëkk ba biñ la jëlal xam nga mooy ban sa pap sa pap moo lay wax demal sa kër bàjjan nga dem fa xew moo fa am boo fa demee tamit sa bàjjan programme sa doom bàjjan ngeen gisante du ñu wax nag diw bëggal diw mais dañuy gis ngeen waxtaan xaw a kii yoon te xamante gis nga kële ñu ngi koy jëlal yow ñu ngi lay jëlal buñ leen boolee ñu leen boolee mm-hmm. loolu mooy jabar buñ la jëlal d'accord dafa lu ma xaw a jaaxal bu njëkk danga daan gis ñu dañ daan dégg wala boog ñuy ñuy gis même bu dee tuuti mhm. euh, euh, euh, sa nit da da ngay ñëw sa yaay wala sa nijaay wala sa papa nee la demal kër diw sa mhm. kër nijaay mhm. wala sa kër rakku pap wala sa kër bàjjan wala sa kër tànt mbaa sa kër maam sax nga dem xool xale yi nekk foofu nga dem xool xale yi nekk foofu ba ñëw ñun la kan nga si gis nga wax ñu dem takkal la ko te yow bu nu xasee ba wax sañatoo si teg làmmiñ est-ce que jamono jii nii lii am ak lii amoon lan mooy différence bi. noo xam nga yéen jigéen ñii ngeen am. bu leen seen yaay waxee dara dañuy tontu seen yaay ba tëdd ci suuf. bu si génnee sa bopp bul wax yéen. bu si génnee sa bopp non xaaral rek xam nga man bokk ma si génération bi. lu tax nga wax loolu. non parce que xam nga nii man wa xam nga li ñuy def nii man du ma ko def li ñuy wax du ma ko wax. mais yaa ngi si même génération parce que magee woo leen magee woo leen 5 ans magee woo leen. magee woo leen 6 ans noonu mais xam nga man ci bokk yàlla dimbale na ma bokk ma ci yar bi ci ci ban yar nga bokk. man yar bi ma bokk mooy damaa fekkee ay jàpp ndab ay lekkee loxo. xool sa kanam xam nga lu ma la wax. est-ce loolu da nga bëgg seetal sa bopp wala. danga am looy looy argument ma sama bopp de. Hmm. man ci laa bokk quoi mais xam nga tey. Hmm. nit liñ ko liñ ko tabaxee. Hmm. foofu foofu lay waxee. gisuloo léeg-léeg ma wax nit ne ma li ngay wax dégguñu ko leeral ko affaire fekk man fi ma liñ ma yare loolu laay wax. comme ça mais mais tey booy seet. jigéen ñi nga gis nii. am na ñoo xam ni duñu wannal seen yaay baat. ku dul wannal sa yaay baat est-ce que dina wannal jëkkëram baat. ba pare am na si jigéen ñu xam ne aussi dañuy ñëw judd fekk seen seen yaay di def seen pàppa naka su dul noonu. Mhm. ñu koppi ko si seen ndey yàq fu ñu sëy yaakaar ni loolu lañ la war a def. loolu la ñuy wax lu nuyoo sa ngorogo feeñ ci sëy déedéet déedéet am na jigéen lu loo xam ne lu muy def loo xam ne tayu ko. Mhm. dafa gis yaayam di ko def. Mhm. mu gis ni yaayam lii muy def mu jàpp ni aayul bu demee loolu lay def jëkkëram. ba pare tamit am na ñoo xam ne dañ ñu lay may jabar dañuy fen may la jabar mm-hmm. parce que bu ñu ko taajee dañ ko naan boo demee sa kër jëkkër ni nga mel fii mel ko foofu de waruñu wax loolu dañ ko war a wax boo demee sa kër jëkkër ni ñu bëgg nga mel mel ko. d'accord Jimbori ndax ana nga ci tuwaay mois takk jabar appartement sama jabar sama jëkkër. non loolu xam nga jigéen loolu man duma ci d'accord mm-hmm. parce que gis nga jigéen bu la naree toroxal dëgg dëgg dëgg est-ce que xam nga nan nga koy xamee. ci naka say xarit la lay njëkk a tàqaleel ah waaw doog laa taqaleeg say mbokk toroxal. xanaa da nga kaa dund yow. man jigéen mënu ma toroxal. non attends sa parcours bi nga def yëpp. amul benn déception bu la jigéen mos jigéen mënu ma toroxal xam lan laay def dañuy mën a dem ñoo dem ma bala ndànk parce que doo suma ndey. booy ak relation yi nga jaar yëpp avant ngay am soxna jigéen jigéen mosul a trompé. doo suma ndey doo suma ndey de. non Jimbori attends parce que. Ah. Euh, dafa dafay xaw a compliqué tuuti xam nga. Ah. da nga da dañoo nekk si milieu boo xamante ni dafa xaw doy waar. Ah. dañoo nekk si télé. adduna bi yëpp di ñu seetaan yow nga daan nga baal ma si kàddu gi nag. nga daan doxaan ay xale. yaa ngi dégg hmm. nga leen di bëgg ñu lay bëgg. Hmm. nga leen di bàyyi suba ñu bàyyi la. Hmm. avant ngay am soxna nga ni jigéen musulaa trompé maanaam. noo xam ne jigéen du ma trompé man. mais yi dama bëgg xam maanaam yow lan nga ba jigéen munu laa tromper. non cest a dire xam nga man lu may bëgg lu may dem. xam nga dafa am benn wax bu Serigne Touba wax. muy nee na fekkal li nga gën a bëgg nga yar sa bakkan ngir boo ko amul. d'accord man gis jigéen noo mën a mel. Mhm. dama lay bëgg ndànk. d'accord ba pare xam nga benn borom xam euh, ku nekkoon fii muy Seydina Maawiya. Mhm. Ibnu Abu Abu Sufyaan. Mhm. dafa ne buumu faalay mun naa ko ñor deeg nit te du dagg. ñu ne ko munul nekk xam nga buumu faalay. xam nga mooy buumu wuteen bu nooy boobu ñu ne ko loolu munul nekk mu ne doo ma laaj nu may def mhm. mu ne nan lay nan ngay def mu ne bu bu xëccee ma yolomal bu yolamalee ma xëcc ndànk man jigéen da bu ma ciy dem dem man dama ciy dem ndànk mhm. du ma ci demee doole mhm. booy ñaari nit bu ñu bokkee di lekk ci ndab kenn ki jékki-jékki këpp ndab li soo suurulit sa xel war na dal booy ànd ak jigéen mu xëy am lum la wan mhm. mais booy kii du sa ndey juru la doo ko bàyyi mu dem nga dem. d'accord euh, mais yéen da ngeen bugg a forcer. boo nee yéen da nga siy génne non yéen la rek xam nga man lu ma bañ. non dafa am ñoo xam ne bu leen jigéen. non si génne si ñoom defet la defet defet lañ koy jàppee. non man naa ne nag da ngay wax nii rek mais jigéen mas na laa trompé parce que tamit bugguloo ko wax si kanamu écran yi pour jàpp ni gars yi jàpp ni doo cuune ak yooyu noonu man bu mag laa mais dama ni jigéen jigéen laa wax da jigéen ah ak xaalis nit du ma ci trompé. d'accord mhm. Mhm. xam nga lu tax xam nga jigéen est-ce que xam nga jigéen bëri na jigéen ñu xam ni nag mhm. dañ leen di jox góor ñu xam ni yoruñu leen ba pare yaa ngi naan jigéen jigéen rôle la lii nii li profil bi taxaw noonu loolu du jigéen de fekk ak wul du jigéen lan mooy jigéen jigéen d'accord fekk ñëwul ci format biñ ko soxla nekkul jigéen. d'accord léegi dañuy dugg directement. ci ci ci ci li nga xamante ne mooy actualité côté euh, divorce yu bëri yeeg danga may takkaak du ma la takkaak li nga ma may après. Euh, suturante bi xawante balaa ngaa continuer ma wax la ci dara. Mhm. jigéen ñi dafa xoola célébrité yi nga gis nii. Mhm. boo xaree seen xol yi ñu ñu bëgg bëgguñu leen ñi leen bëgg bëgguñu ñooñu moo tax ñu lamb nii. cela veut dire ñi ñi leen. non comprendre duma xam nga nit ñi dañuy seetaan dañuy bëgg muy leer. Ah, ah. dafa gaaw quoi maanaam répétition bi lan ah, la. mani waaw célébrité yi ngay gis fii. ñiy bëggante. non ñi nga gis ñu siiw jigéen ñii. waaw ok boo gisee ñu lamb. ñu lamb ñoom lamb ni ceebi mbootaay. waaw boo xam ne nii dañoo sóor loo xam ne moo ëpp nit ñi. fay ñëw est-ce que yaa ngi sóoraale commentaire yeeg jigéen ñi non non da nga ma non da nga ma dégg mm-hmm. xam nga xam nga xam nga lu tax ñu lamb. Mm-hmm. boo xaree seen xol ñi ñu bëgg bëgguñu leen. ñi leen bëgg bëgguñu ñooñu. waaw léegi kon foofu noonu kon kay bëgganti mënu faa. tey ji yow mii boo jogoon tey di bëgg kenn fii. nga dem bëgg mii a gisee. te mu bañ. la te boo xaree xol bi kam bëgg bëggu ko. Mia maa ngi ñëw parce que Jimbo non attends defal ndànk non attends defal ndànk defal ndànk defal ndànk defal ndànk rek Mia maa ngi ñëw. Jimbori dafa ni boo demoon non non attends defal ndànk mbëggeel du oto mbëggeel du xaalis Jimbori attends defal ndànk rek waa garaawul j'accepte dama ni waa d'accord garaawul waa léegi d'accord garaawul Mia maa ngi ñëw Jimbori nee na su ma su ma ñëwee ci yow di la bëgg doo accepté yaa ngi dégg te suma ma ñëwee incha allah man xam naa ne di nga accepté <laughs> léegi nag déedéet dama bëgg mu leer rek léegi nag dañuy dugg directement. wax ni ñoom li leen taxal lamb nii ñi ñu bëgg ñoom. waaw ñu bëgg ñu leen da ngay dem xar seen xol fekk faj Basir Jamaay Fay te Jamaay Fay bi mu nekkee fii ñu koy sànni xeer ñoom bëgguñu ko. d'accord comprendre nga ñoom noonu la ñuy tëddee. fii ku siiw dafay yaakaar ni moom ku ku ku ku am daraja la war a àndal. warta ànd ak benn genre jimboor yi boo xam ne day taxawaalu ah. nii. comme ça question bi ma ah. bëgg a posé mooy euh, ñu bëri ñoo xamante ni dañuy liggéey nekk fi Sénégal wala nekk à l'extérieur ah bu ñu dellusee euh, dañuy choisir ñi nga xamante ni ñoom ñoo siiw ah sotti may leen xaalis jox leen kër ak oto yaa ngi dégg euh, pour jéem a mariage ak ñoom da ngay toog tuuti ñun la sëy bi am na problème nga gis ni am na ñoo xamante ni ñi ngi fi toog yoruñu oto yoruñu xaalis yoruñu kër. te dañ leen yar yar bu baax ba pare tette leen ba nga xamante ni boo leen takkee da am jabar ji lan mooy différence ki nga xamante ni euh, artiste la ñu takk ko ci liggéey bi muy def noonu ak ki nga xamante ni dañ koo yar ci biir kër mu war a dem sëy lan mooy différence. xam nga yéen seen problème mooy seen jigéen yéen. dañoo judd loolu laay bañ wax seen i jigéen bul wax see bu si génnee sa bopp. xam nga yow seen yenn jigéen ñi fi yaa ngi dégg seen jigéen ñi dañoo tàmm taxawaalu ba nga xam ni. pour ñoom waaw xaaral xaaral ñenn ñi ñenn ñi. ñenn ñi préciser voilà. voilà yow Sénégal rek ngay gis ko xam ni day joxe dix million pour dem Europe. loo bëgg wax foofu. tàmm taxawaalu. ah Jimbori attention. booy dix dem Europe doo liggéey fii. léegi jigéen seen jigéen ñi nag noonu lañ mel gis nga ñiy jël gaal yi nii ni ñu yàkkamtee ni paraj. xam nga paraj. mooy ginnaaw kër yooyu nga xam ne bala ngaa ubbi duus fekk day nga. <laughs> yaa ngi dégg ti seen àdduna. comme nga ni mu la wax xoola noonu la ñuy defee noonu la ñuy gisee góor gu jóge Europe yaakaar ni war nga leen a mën a yóbbu Europe ba nga yaali leen daw. d'accord euh, kooku loo ko mënal. d'accord yow jógeel Europe rek am na ñoo xam ne jógeel Europe rek yow. jógeel Europe rek xeeñal Europe te ñi nekk Europe mais coono bu metti la ñuy daj. Mhm. soo li Europe boo fa demee boo liggéeyul doo am. Mhm. rek mhm. am na ñoo xam ne nii sax demuñu Europe dem tukki ak daw laaxatu ji du benn. d'accord parce que tey yow seetal imaginel ñi nekk Europe mhm. dañ leen a war a ñaanal yàlla. ñoom tamit léeg-léeg ñu ñëw am ñu leen nax. Mhm. nax seen xaal lekk ko. Mhm. te duñ leen seel. d'accord ñu ñëw aussi takk fi jabar. jabar ji di leen ut ut far. ba pare di lekk seen xaal te Europe dafa mitti Europe dafa mitti dañ leen koy def ñoom am na wala amut. léegi nag li am ba des mooy jigéen ñi ci boppam jigéen ñii. seen jigéen ñi dafa am foo leen perte. fi ngeen fi ñu perte jigéen ñi. Mhm. perte fa kilifteef loolu il faut ñu régler ko xam nga fan lañ perte kilifteef ma wax la ko. Mhm. bu njëkk ba boo daan doxaan jigéen day ñëw toog papa ji toog yaay ji toog di la gis. sañoo dugg si biir néeg ah, ah. Mhm. ñu dem ba mu yàgg jigéen bi moo moo ko rakkam bokk néeg léegi buñ far bi ñëwee ja rakk ji day génn xajal moom ak far bi néeg bi papa ji ne ci biti duñu xam lu ñu fay def. d'accord loolu buñ bi mu commencé si lañ loxoti jigéen bi yóbbu ko ci mbedd mi yóbbu ko Uber. léegi nag foofu si lañ perte kilifteef. léegi téléphone yi nga xamante ne da toog fii ki nekk mbuur ñaan ngeen. échange waaw waaw waaw mais xam nga fi ay kilifa yenn kilifa yu fi nekk. Mhm. kilifa yooyu du ñuy kilifa. parce que tey da nga daan gis sëy gisoo sëy léegi xanaa xam nga sëy soo demee ñu duma la si rek amoo kilifa ku am kilifa duñ ko dóor si sëy. mais Jimbo il faut faire très attention lan mooy boo boo demee ci sëy ñu duma la. Euh, amoo kilifa. non defal ndànk am na ñoo xamante ne dañuy am kilifa ba pare. dem ñu duma leen ci sëy parce que day fekk ni ñoom ñoo tooñ lu leen di dumaa defal ndànk waaw waaw kay. léegi boole ñaar léegi ma wax la benn affaire. xam nga sëy bi bi nga bëggee ndaw si ndaw si bëgg la. Mhm. lu tax mënu leen a maye seen bopp. non non loolu mënul nekk. mun ñaan ngeen maye seen bopp. Ah. nu ngeen di maye ok kon dangeen ngeen a yaakaar kilifa moo tax ngeen dem ci seen kilifa pour mu maye leen pour ngeen am droit dox ci mbedd mi am droit ñuy waxtaan ba mu yàgg nga ne ah sa waay ba suba dugg si néeg bi yàgg sa jabar ngeen tëju nit ñëw di ma laaj ma ne ko tëdd nañ léegi. ñeme nga loolu jël jigéen du sa jabar ñuy waxtaan mbooloo ci kër gi nga jekki-jekki rek ne leen ma ñëw dugg ak jigéen bi tëju ñeme nga ko. te mayuñu la ko. léegi may giñ la ko may moo tax nga ñimee dugg ci biir tëju mu ngi mel ni tey nga doon julli nga nga fekk sa njaboot toog julli jotul nga leen di juutu. Mhm. day ñaaw mais bu julli jotee boo juutoo du ñaaw. Mhm. xam nga lu tax julli gi mooy nëbb sa juutu yow. yaa ngi dégg mais dama lay wax ne la dama lay wax ne la mhm. euh, benn affaire xam nga tey sëy sëy dafa am lu ko ëmb léegi boo déggee ma ne la jigéen bu ñu duma amul kilifa. sëy day am ndayale. d'accord am baayale. baayale mooy. baayale mooy ki ànd ak sa papa dox sa ndey ba ñu may ko ko comme yow ak kii ni ngeen di àndee. ngeen ànd dox ba mu takk jabar. yow bu jabar ji demee ba am doom yow yaay baay ji. léegi ndayale mooy. ndayale mooy jigéen bi ku mu àndal nekk xale ba nekk mag. kooku mooy nekk ndayu doom ji. da nga gis ni loolu dafa amatul léegi. déedéet bàyyile damay xëy gis ko am xaalis ma ne ko yow laa bàyyile sama doom. loolu moo am sama gaayen keuse. loolu moo am moo fi am ndayele da tànn ku yor xaalis kooku bu sëy bi dérangé wu ba pare jigéen bi soo ko ndayalee ki nga ko war a ndayele bàyyile ko ki nga ko war a bàyyile yaa ngi dégg mhm. su fekkante ne su fekkante ne euh, euh, euh, tooñ nañ ko mhm. day dem moom day dem baal leen ma de. Mhm. nim ñoo ko ndayale ne ko diw kat dafa ma tooñ dem si kuñ bàyyi la ne ko diw dafa ma def lii ñooñu woo parent wu kee kooku woo seen doom bu ko defee kenn du la dóor d'accord mais am na ñu bëri dañuy boole balaa ñooñu di régler problème bi nga saaga sa jëkkër ndey mu toj sa bët. d'accord foofu euh, foofu la ñuy munoo munoo munoo atte sa bopp. d'accord foofu la li nga li la wan ni sëy bi munoo may sa bopp waaji. Mhm. loolu moo lay wan ni sé yaag waaji sekku leen dóor. d'accord foofu la ñuy duggee sax ci actualité bi di si damm. ba actualité parce que xam nga bukki yàppatul bi di nga yàpp bay dagg caxam. xam nga am na yoo xam ni munul nekk si sëy sëy balaa nga koo def da ngay xam norme sëy ba pare moo wax la benn affaire jigéen mun na ñaaw mën a sëy jigéen rafet du mën a sëy ba pare soo gisee sëy nii yu bëri di tas bu njëkk ba lu ñu daan takkee jigéen mm-hmm. non diw moo takk jabar ju njool ju xam ni rafet taaru loolu nga daan dégg bu njëkk ba lu tax jigéen ñu ñaaw ñi di sëy ñu rafet ñëpp di taxawaalu xam nga ko ñu rafet ñëpp dañuy taxaw dañuy taxawaalu léegi na dañuy fase nit nga naan mii kii di nit dina ko am di ko fase mhm. doo dégg ñuy wax lool adduna moo soxlaatul taar borom bopp la soxla gis nga fu mu toll nii boo nekkee góor bu jàmbaare nekk jigéenu yàqkat mhm. doo leen dem parce que plaisir dafa soppaliku léegi nekk ci alal ki la koy yaxanalal day bokkaale si relation bi mais ki kay yàq day lu mu rafet rafet doo ko gis. d'accord foofu la ñuy duggee ah, foofu la ñuy duggee sax ci actualité bi nga xam ne am na. ok Djimbory ñu lay sant la gërëm ci dalal bi ñu la dalal bon ñuy ñëw tey ci actualité bi comme ni ko DJ waxee mais avant ñoo ñëw ci actualité bi dañuy ñëw ci li nga xamante ni li ñuy wax mbir boo ko bëggee lijjanti dangay dellu ci cosaan bi maanaam tey ñëpp actualité bi mooy ndaxte Mario ñu gis ndaxte tey ñi ko formé mooy seen petit galle est que tey maanaam seen petit gàlle ni muy formé ndaw ñi ci wàllu musique ci wàllu woy dem ba heure bi tem ñu def benn buzz boo xamante ni kenn kenn du xam li mu doon yow tey ndax d'accord nga ci formation seen petit gàlle ci ay ndaw yoo xamante ni dañ leen di former ci wàllu musique. waa xam nga seen petit gàlle man man man man pour man man lu ma njëkk a jaaxal leen la bu ñuy jël si sa doom dañuy bàyyi seeni doom ñoom seen kër. su baaxoon ñoom seen doom lañ siy dugal li ñuy yàq si dëkk bi golo du ko yàq si toolu xaal. ñan ñooñu. seen petit gaal laa la parce que ndaxte déggu leen ko li mu wax nee na bi ko bi ko seen petit gaale du jël bi muy dem yóbbu na ñaari kaar. ñaari kaar yi duñ fansam de. Mhm. seen petit gaale fan su seen petit gaale lañ. comment waaye coon sekk sax dafa am commencé am ñaari kaar. xam nga loolu mooy wane ni rompé woo. budget boobu ñan ñoo koy def ñoom ñoo koy def. ou bien ñoo koy def dañuy jël sa doom way jàmbur nga nekk ci star borom nekk ci star nga nekk ci star mën na nekk toppandoo way Viviane rek dafa tax a doon Viviane génnal Viviane Viviane lu xool ba xam. kenn du la engagé doo tëgg fenn seen kër sax fukki billet doo ko fa yor. looy wax ni. doo ma dégg lu xam ne ñii booy yi ba pare bi muy dem dafa ne dafa yóbbu ay diplôme. Mhm. diplôme yi mu yóbbu boo seetee papaam ak yaayam liñ ci daj gañewu ko ci seen petit gàlle. kon da nga bëgg wax ni seen petit gàlle defaruñu. waaw bi nga nee seen petit gàlle nga xam ne loolu lu tuuti la nekkul sax seen grand gàlle. mais boo yi ñuy formé tamit bu ñu duggee ci sëy ñu am yenn problème yi la moo tax gars yi tamit duñ dem est-ce que est-ce que jotul tamit ñooñu dem waxtaane maanaam dem xool lan mooy problème bi ba tàggat xale ni leen doon tàggatee ci seen petit gàlle ñooy am ndam ñu tàggatee noonu si sëy bi tamit ñooy am ndam. non ban tàggat lañ lay tàggat mooy fexe ba nga mën way wi ñooñu dañoo mën ñu doon tàggat seen bopp dinañ fekk xale bu juddoogul ci xottu nen ñu indi la xam nga mu leer ne leen kii avenir am mi ngi ci kanam mun na nekk xoola xale tuddul xale lu ne la tudd. d'accord mun na nekk président mun na nekk député. mun na nekk ministre mun na nekk lu nekk nga arrêté ko ne ko fii rek ngay yem. parce que dañ lay def star ba pare sànni la boleke la xale yi ñu def star ni mhm. laaj leen bu ñu woowee ñooñ duñ leen jot sax. ba ba ba ba lañ leen yóbbu waa yow. yow nan ngay former nit mu mën wooy ba pare doon star mu lay woo nga koy dugal li sunuwaat jëmboori mais loolu tamit est-ce que est-ce que est-ce que maanaam xel est-ce que nangu na ko non xel du ko nangu parce que xam nga parents yu gëmul seen bopp bu ñu gisee seen petit gaale gis muy woy toppandoo Viviane kese kese kese kese yaa ngi dégg te moom lu mu woy Viviane na ko woy ni ko Viviane woyee la ñuy xool ba xam xale bi woyee na ko noonu mais du ñu xool ba xam xale bi ni mu ko wayee ba xam baax na. d'accord man nag li ma jaaxal mooy. soo mooy ki ñuy indi ju yi xaw ma naka ñuy àtte affaire mhm. dañuy xool ba xam yow ni ko Viviane wayee noonu nga ko wayee. d'accord mais yow ni nga ko wayee xooluñu ko de. kon yow kii naka la tudd euh, euh, euh, biir bu daw jàmbur. Mhm. sa suuf kay waru cee mën a rocceeku. d'accord léegi euh, foofu laay duggee sax maanaam ci acta loolu mooy actualité bi euh, dañoo d'accord dañoo dañoo gis ndax ama bu ma gisoon ñu jël seeni doom dugal ko ci waaw mais seen benn doom dugg si seeni jarbaat sax dugaluñ ko si mais ñun ñuy xëbër xëbëri ba pare boo ñu formé yëpp xoola yéen a ngi yàq lu xam ne bu ko beneen bu ko beneen réew amoon téye ko mhm. parce que jeunesse bi ngeen di yàq yéen yéen da ngeen di yàq ay xale. yéen ñan. yéen la. non yaa ngi dégg yéen. Ah, yéen rek mu clair rek yéen a ngi yàq yéen yéen a ngi yàq ay xale. comprendre nga ni mu la seen yéen a ngi yàq xale ni ngeen di yàqee xale mooy. xale bi dañ koy fekk si wetu yaayam yëkkati ko yóbbu ko ba pare def ko xoolal jël boobu maam jaara la xaw ma Europe la nekk di sol ay slip am na si keneen ko xam ne nee na slip lay publicité. xam nga wax ni kan. loolu lay def lu muy def leneen yu sexe lay sol di wane di publicité yooyu fu mu jóge fee. fan lañ fan lañ leen formé kon foofu war a foofu dafa war a nekk buntu buntu iblis pour ku bëgg a dem si liggéey iblis nga jaar foofu dugg jàll. ba pare soo leen moytuwul suñ moytuwul lool lool lool lool seen pédigal dina mos a fecculoo ay imam ak ay président balaa ñu koo doon. loolu kay yal si xale non xale bu judd ñu yóbbu la fa. du ñu toog di ah. seetaan ba seen pédigal di fecculoo ay imam ak ay oustaz ma ci daara mais niñ ko defaree nii bu ma sañoon ñu seetaat nuñ koy defaree. d' accord léegi nag. Euh, ndaxte daa def sorti euh, mu wax li nga xamante ni dund na ko si biir néegu sëyam pour man góor boo bëggee sa jabar sa jabar bëgg la ba muy neex yéen ñaar la woon ba muy métti tamit war ngeen ko mën a dund mais man lii sama problème maanaam bi mu nekkee si sëy bi mi ngi fay am ay problème kenn mësu ko dégg mais mu toog euh, ci télé. wax maanaam li nga xamante ni mooy viam yëpp est-ce que doonoon na yoon mu toog foofu wax li nga xamante ni moom la doon dund ba problème yi yëpp di am ba Sénégal di jaxasoo seen biir mhm. xam nga xam nga xam nga man li ma dégg ci biir waxam mhm. nee nañu balaa waa ji di ko takk sax benn bis saaga na famille ndaxte yëpp lu tax ndaxte ñëwul wax ñu loolu toog ba tey di ñu ko nettali. lan moo tax mu sëy ak moom tamit mu gis ba mu koy bëgg si mu saaga foofu. waaw waaw non waa ji. Mhm. mi ngi ci lu yàlla bëgg. parce que yàlla dafa ne bokk naa ci li ma gën a bañ. bu fase bu dem mënta am na fase am yàlla moo ko wax mais boo leen wanantee ginnaaw bu kenn weeraate ndaxte dafa ñëw bi muy li muy nettali yëpp keroog bi ñuy pranki waaji loolu mu nattoon buñ ko bàyyi woon mu dóor ko waaji waaji kanam gi deena bu yàgg mais li ma jaaxal nag mooy daf koo teg matraque la wax ndax ndaxte ci ay waxam neen daf maa dóor ba teg ma matraque est-ce que loolu bu nekkoon ni bu dee li mu wax dëgg la c'est très grave xaw ma nag dëggal wala du dëgg parce que li ma jaaxal mooy waa ji gisugunu fenn mu def sortie est-ce que nekkul liñ koy waxal tamit bu yàggee day nekk dëgg. non dama lay wax benn affaire. yéen da ngeen gis jigéen muy dem am na jigéen ñu xam ne góor lañ. maanaam si naka nga bëgg a waxee. non am na jigéen ñu xam ne boo leen fekkee seen couple nii suñu meree wala ñuy ngën ngati góor lañ. dañuy nekk góor comme góor gi. maanaam xët bi ngay wax. non alir bi muy am ak arne bi day nekk góor ba yow yow góor gi soo mënul téye sa bopp kurfañ day xaj si moom. ok jigéen bu xuloo xuloo jigéen kurfañ du ko dal. xuloo jigéen dafa am. maanaam waxtee dal. waaw mais am na jigéen ñu xam ne dañuy takku nga xam ne kii daf lay paree gaañ. ñaata munoo ci waa xaara ñaata jigéen ñaata góor la jigéen taal fi. ban góor ban góor ngeen ma sa gis mu taal jigéen amul. fii ñun toog nañ fi gis jigéen taal fi góor mu takk ba jeex takk. d'accord léegi nag gis nañ fi góor mu jigéen mu fekk nit di nelaw góor mu yóbbu waay yàlla ñun li ñu reyal ñun góor ñi waxatuñu ñoom ñuy def coalition ñeneen ñi di ci génn di mbatti mbatti. yaa ngi dégg yu kenn xamul te ñooñu seen problème ak problème bii du benn. voilà ndaxte dafa def erreur erreur. bu rëy ci communication def na erreur dafa ne sama yaay. jàngkat la sama bàjjan jàngkat la. mais moom lu tax mu jël yaayam ak bàjjanam def leen référence te bàjjanam ak yaayam jëf nu ko référence moom. lu tax maire bi bàjjan bi. boo bi ni mu mënee toog ci jàngale. ba ndaxte judd ci ba xam ni sama bàjjan mi jàmbaar la borom xam-xam la. moom ndaxte bu ko toogoon ci ci ci ci ci ci bàjjanam toog ko ci yaayam du ñu yeg du yegg si fii ba yéen ñu ciy jot keneen keneen. di ci wax tàggan nañ ko ci loolu Jimbori. non tàggan nañ si si loolu parce que moom dafa ñëw joxoñ ñu parents mooy kan. parce que léeg da ngay yar sa doom ay nit dugg sa biir kër loqati sa doom yóbbu ko ci mbedd mi jox ko beneen jikko. d'accord mais ndaxte dafa am dafa am lu mu wax dafa am yenn defi defakaan yoo xam ne état moo koy war a protéger. voilà d'accord mais pas yow parent. Jimbori ak lépp lu nu mën a wax nag. dafa am loo xamante ni baar bu ubbi woon ci mbedd mi ni ak yenn yeeg yooyu. yow mënoo ko aaye. waaw d' accord ñun ay mën yow ah. yor nga soxna xam nga ah. li nekk si soxna. Ah. tey sa soxna bu nekkoon en état non a xaaral rek dama lay expliquer. non maasal nun waaw léegi d' accord naa yoruma soxna tey ni nga yoree soxna nekk responsable. Euh, moom nee na bi mu nekkee en neta euh, euh, maanaam état de grossesse maanaam kii na si ñaari yoon quoi maanaam yàlla bañ na maanaam ñaari yoon mais benn bi nee na bi mujj bi bi mu ko woowee dañu ko carrément man maa ngi nii damay dem soirée Momo Dieng tey yow boo taxawoon place ki nga xamante ni mooy Mario sa jabar woo la yàlla tere yàlla tere nee la carrément instant bii nii eh, yàlla weddi na maa ngi nii maa ngi eh, mu ngi lay woo est-ce que di nga dem soirée Wally Seck baay fa sa jabar. sa jabar question la comme li Mario def boo nekkoon place am yow est-ce que ko def. Mario ak kii naka la tudd ndaxte. waaw fan lañ gisante. no waxu foofu. non dama lay ñëw dama lay ñëwal. fan lañ gisante. waaw ndax Mario dafa gis eh, ndaxte ci image doog a ñëw ñu gisante. gis nga ki la gis ci image. doog a ñëw ngeen gisante. mën na laa def lool kay. mën na laa def a waaw doo ma xanaa. non non bëgg mu leer quoi moom mën na def lan. ubbil say nopp. dama ne ki la gis ci image doog laa gis. waaw mën na la kaa def. si si si naka. mais ki la gis avant avant image du la ko def. kon da nga bëgg wax ni image ak image dafa am différence. sa wax mhm. ni. sëy bi mën a jàpp. la kay. kon sëy bi sëy soo bi leer na ma leere yàlla ne ndaxte bi mu demee di bëggante hmm. am na ku ko bëggoon sa seen koñ bi mu demee ba siiw bëggatul kooku ok dafa xool beneen niveau waaye même waa ji sax am na ku mu bëggante loon parce que mënul dund ba toll noonu xëy dal ci ndaxte waay. d'accord léegi nag mënut a dal ci waaju waay. d'accord léegi léegi li ma bëgg a wax nag mooy ah, mooy mooy kii ki nga xamante ni ah, moom mooy. ñoom tamit nañ seen xeex yi nañ kenn ku si nekk ci ñoom ñaar na xool ki ñu war. d'accord Mbooja Mbaay dañuy ñëw si si Mbooja Mbaay damaa gis mu def benn sorti di wax ci ah, diggante. <laughs> d'accord. <laughs> leen ba pare xëy takk keneen ndax jàpp ni daa siiw. Euh. du demee noonu. lu leen nga bëgg a wax foofu. xaw ma de waaw léegi nag li ma bëgg wax mooy mbo ngeen baal ma mbokki auditeurs yi ngeen baal ma li ma bëgg wax mooy Mbodia Mbaye euh, euh, bi problème bi amee daa def sorti bi mu defee sorti dafa wax mu ni carrément euh, ndaw si ñëpp dañoo maanaam ñëpp jigéen ñëpp dañoo ànd dem si ndaw si dooleel ko jàppale ko lu nekk ñu wax ko si nee na léeg-léeg di nga génn si benn sëy ah nga muñ fa loo xamante nga nga dund fa loo xamante ni fi ngay dem moo koy gën a pire est-ce que li ngay dem di fekki di ko est-ce que li ngay dem di fekki li nekk fii gënu ko beneen bi si des Mbodia Mbaye nee na carrément ñëpp danoo ànd àndandoo def ko coalition dem ànd ak ndaw si mais ku góor ki li ko jaaxal ba léegi génnagul def sorti Mbodia Mbaye dégg nga ko mu wax kàddu yi mu wax tamit moom dafa mel ne àndul ak ndaw si ci jigéen euh, euh, lan nga gis ni moo tax àndul ak jigéen. non xam nga ku góor ki. li ko yàlla sant loolu la def. parce que yàlla dafa santaane ne bu tas amee bu kenn weer say nee nañ euh, ki gën a bon ci nit ñi mooy ki nga xam ne lu mu defanteeg euh, jëkkëram wala lu mu defanteeg jabaram day génn di ko wax bi ñu bi ñu bi ko moom am na ay moroomam yu fi nekk yoo xam ne xam nga ban problème la ñu am bëgg ku leen fase kenn nanguwu leen a fase yow dégg nga Mbodj wax nee na am na ñoo xamante ñu ngi dund lu gën a pire li ndaw si di dund ñu ngi koy soutenir terewul ñu ngi toog ci seen baay man bëgguma wax waxam sama jigéen la waaw mais mais Mbodj Mbodj moom ndax day dund lool waaw moo tax man la. am na célébrité yu génn noonu sax di coow noonu. am na si ko xam ne faram faram moo koy daan wax fii yaa ngi dégg keneen ki génn kooku noonu jàmbakat boobu. yaa ngi dégg non tu jàmbakat bi rek kii jamba xeesal yi rek. ah diw yaa ngi dégg kooku. da ngaa ragal egg ci tur bi xanaa gémmiñ mel ni émorite. daa mel ni ñame ñame woon nag. xam non man ragaluma kenn damay wax rek. da ngay wax xam ki nga xam kan xam nga bi tas bi dafa am ay yeneen jigéen génn di calli calli calli-calli jooju lépp sëy bokkuñu bokkuñu ni ñu tase bokkuñu ni ñu amee sëy ba ba ba nangam nangam di ci am kooku nga xam ne léppam xaalis la ko jàppe bi mu xasee ñam dix mille francs quinze mille comme jaay katu ndox la woon moom yaakaar na ni jëkkër bu dee jaay sax mu dem jëndi ko naan maay jënd silip maay jënd tubay maay jënd simis yoolu yaa xam mais ko kan la lan ngay ragal ci wax turam non dama ngay ragal mu engagé la xeesal boobu laa dañoo bëri jimbo xaw ma de mën a yam ah, na ko xaw ma turam nit ñi gis nañ ko muy kii bu dee yow xamoo ko. nga seet d'accord léegi nag li ma bëgg li ma la bëgg a laaj pour léegi ñu. muy jàmb dara baaxul. voilà léegi léegi ñu léegi ñu tëj léegi ñu tëj émission baaxul léegi ñu tëj émission moo leen def gaynde yaa ngi dégg dara baaxu ci. moo xam de. xanaa yow Maam Ndiaye Savon ngay wax. xaw ma de xeesal yi dara baaxu ci te li muy diwoo nekk loolu lay jaay. te xeesalam bu la ko joxee boo ko diwoo boo defee nii sa làmmañ day saf suukar. li ngay def ne est-ce nekkul da ngay attaquer nit ki tamit suukar ak tàmm loolu moo tax ñu jox ko togg mu jël gloria sotti ko ci. jël avant ndaare. yow kay justifié nga yow kay wax nga wax nga ki ngay wax xaw ma de ki jël gloria moom def ko si ceeb moom ñëpp xam nañ kan la. ma de man loolu sama yoon nekku si de non du ma nawleem moo tax duma ma turam. ok nawloo ma ko quoi. ok Mbodia jigéen ñoo xam ne dama leen nawloo. d'accord léegi Mbodia Mbaye dafa nekk jigéen mu taxaw position mu taxaw position boo xamante ne nee jigéen ñi ñu koy soutenir ñëpp ñu ngi dund loo xamante ni ah, moo gën a pire. sama jigéen la mais Mbodia Mbaye problème bi mooy xam nga ko xam ne nii gaa ay wàllum taat rek ngay waxtaanee xam nga kooku man du ma si mën a addu daal. parce que ah, tamit mënoo jël livre taat rek yor ko mënul nekk ko. ok kon kon dafa mel ni maam Ndiaye Savon lay wax mais léegi euh, kii Jimbori ñu gis tey Mia Guissé tamit génn na moom moo njëkk bokk na ci ñu njëkk a def sortie euh, mel ni def photo ndaxte défendre ko te moom gis nañu sëyam ba léegi nangu ci indi benn leeral que li mu jotee waa ji te gis nañ sëyu jàmbur moom dafa taxaw défendre wax loolu noonu est-ce que d'accord nga ci Mia Guissé tey ñëpp doon ko xaar ci sëyam waxu ci mu ñëw tey taxaw di wax ci sëyu jàmbur. xam nga Eh, bi bi mu jotee ak No Face mm-hmm. man moom laa xawoon faral sax ah Mia mm-hmm. mais Mia ak sëyam ak sëyu ndaxte du benn Mia sëy bi moo jiitu siw gi sëyam moo jiitu siw gi mm-hmm. mais Mia ndekete No Face nam ko doon def moo gën ci moom parce que bi mu muréekoo ba léegi dafa xolli der teg tegul der. Oh, yaa ngi dégg no c'est-à-dire xam nga léegi-léegi xam nga yonent yàlla musa dafa mos a romb géej fekk fa xale yi di sangu am ko xam ni amul tànk muy tàcc di kontaan rek mu ne oh kii yàlla mënoon na ko may mu mu dugg di sang comme moroomam yàlla ne ko wax ko mu jog dugg rek mu ne ko jogal xale bi dugg commencé xoj xale yi muy dee mu ne ko i mu ne ko li tax ma ne ko toogal xamoo ko li taxoon miyaa nekk ci no maa ngi koy xam parce que futteeku ji muy def nii yaa ngi dégg toogoon ca noo noo noo fees xaw ma xaw ma fees. Mia dafa futteeku da ngaa gis mu futteeku. xaaral xaaral bi comme gisoo ko boo doful loo gis leer na la. non defal ndànk man non côté colline non defal ndànk maanaam clip yi muy def ngay wax tour di tourner sol ay jupe sol ay ay ay ay bas. waayam neex na de mais. futteeku mooy nit ku solul yére jimboori ñun ay olof dégg nañu olof tamit. non futteeku bi moom man d'accord ma ci parce que noo fees da koo lëmasoon muur ko. sàng ko kenn gisul musul gis sax poojam. bi muy sëy ngay wax waaw boobu baat bi rek nga daan dégg. mais moom comprendrewul ni sénégalais yi duñ déglu sax ay way taati neen lañ gën a déglu yi way. kon da bëgg wax ne am na xam ne ñoo ngi koy roy jamono. am na ñu bëri seen way lu tax mu neex taati neen yuñ ci rax rek yow wan leen pooj rek ñu ne say way neex na. wax dëgg yàlla dafa bëri ñoo xam ne ko su ma la déggee dafa mel ni Mia Guissé li muy def nii tey lu mu yàggoon bëgg la mais dafa mel ni ku góor ki daf ko tënkoon tey dafa mel ni ku firéeku quoi. waaw non xam nga man man dafa dafa dafa dafa firéeku na kay mais tey jii xam nga tey baat bi neex na booy bi mën na woy tamit su defee ndànk mën na lekk ci aar lu bëri mais yàq lii nii xeetu yàkkamti la laa koy jàppe parce que xeetu wane sa ween xeetu wane sa bopp wane say awra ci yàkkamti la bokk parce que am na ku fi nekk jàngee fi way rompe ba dégg daali te kenn musul gis sax ay weenam mais bu dee yow sa siw ñu ngi ah waaw faatu géwal ñoom ki na laam ñoom euh, maire sooda mama fall ah, jaal mbaay xam nga ñoom ñoom xam nga mhm. ñoom kumba gawla xam mari njaay gawla mhm. xam ñoom viviane parce que ñoom arne viviane xoola ñoom ar viviane moo leen jaaxal maanaam loo bëgg wax foofu bëggee copie pour nga copie ko dafa xaw a garaaw pour toppandoo ko. ok xanaa la Viviane dafa xaw a dafa dafa garaaw Viviane dafa saay saay si musique ba pare ni muy lugam dafa nekk lug bu garaaw xam nga booy bi xaw na jël xaw na jël way Viviane bi parce que Viviane bi muy way nii comme fi way toll. yàgg na nit ñi naan dafa waane kii dafa soof muy américain américain lu far musique daanu si foofu. kon xam nga non xam nga tey kii way bi mu génne noonu munoon na ko way mu rafet c'est que Viviane gis nga ni mu koy logee di wax ni man sama doom sax laay xamee message Viviane yi benn bis laa déglu. dégluwaat maanaam nan koy waxee nga bëgg non bi mu naan séeri nangul ma da nga bëri jom. xam nga xam nga li nga yanu bul wut wàllu ñeme ko waaw xam nga yooyu ay message yu garaaw la mais genre message yooyu la booy bëgg bay wax loo xam ni nopp du ko mën a dégg. xam nga non xam nga tey mun nga wax mun nga wax awra tudd ko si façon tudd boo xam ne nit da koy déglu mun nga ko tudd si façon tudd boo xam ne nit du ko mën a déglu. comme ça loolu day am mais tey ma ni bu defoon ndànk-ndànk mun na nekk woykat parce que woykat la. mais damay bañ mu nekk star boo xam ne dignité day naaw parce que mun nga nekk star sa dignité dem. d'accord question bu diis laa la bëgg a aar mun naa lekk sa personnalité ba mu jeex takk est que xam nga aar day lekk personnalité. si naka. bëri na ñu artistes fii seen personnalité lekku na ba jeex ba pare am na gel yoo leen tudd fii seen conscience moo xaru ñi na ñoo def sax sili bu neen taxaw fii jigéen bu demee ba conscience sam xaru. yii boobu jigéen moytu ko de. d'accord léegi man. da ngeen da ngeen dem tànn ay nit jàppe leen ay. Eh, jàpp jàppe leen ay nit eh, tànn leen def leen star yaakaar ni way ñoom doo ko war a way ñoom doo nga lañ war a seetaan te ñoom ay mbaam lañ. question bu diis laa la bëgg a ah, poser ndaxte li mu def nii est-ce que góor ñi dinañ ñame. maanaam dem seeti ko pour parce que ñaan na yàlla amaat beneen jëkkër est-ce ñi dinañ ñame dem seeti ko ngir ñaan ko mu mu doon seen jabar wala est-ce que góor est-ce que lii mu def nii yàqalul boppam parce que góor ñi dinañ wax ni kii kat su ma ko demee seeti su ma ko takkee ni mu wili pandee jëkkëram ju njëkk ji est-ce que du def noonu est-ce que yàqalul boppam. non loolu moom du tax mu lamb parce que gis nañ fi Nabou Dash mu tegale 35 jëkkër. <laughs> si torox Nabou Daas am na cinq Jimbóor xaw ma dama laa wax rek boobu ba léegi ji góor ñi comme mbub ak tubéy la leen def di sol ak di simi te ñu ngi góor ñaa ngi takk xam man góor ñii laa comprendre comprendre ngi ni mu la. kon boo waxee loolu kon da nga bëgg kon kon moog Amina Poté da nga bëgg wax ñoo yam kaa xanaa. non Amina Poté ak ñoom ñii duñ benn de. mooy différence bi takka fase la takka fase. xaar xaar ma wax la rek xaar ma wax la bi ngay dégg coow ba léegi. Mm-hmm. ndax mus nga dégg Amina Poté mu génn wax ci benn jëkkëram. xam nga suturaal quoi. dama ni moom da ba pare moom moo yore yëfi boppam. est que bu génnee wax dana ko arranger. xaaral non dama lay expliquer rek. Mhm. naa Poté ak ñi ngay wax duñ benn. tey boo nga maan bu nee génn jël jël ay avion dem ba am fi alal takk jabar di tukki ci avion yi ku ko ko waral mhm. ami naa Poté kon kooku dafa marqué empreinte am ba pare d'accord naa si lu muy def Nabou Daas tamit am na côté bu ma d'accord si moom jëkkër lay wut boo ko bu fekkante ni munu leen dem mu bàyyi la ndànk du la def daara du taxaw weer la. lan moo tax bu si duggee rek gaaw si génn noonu maanaam six mois. non déedéet dama ne xam nga tey Amina Poté moom moo fi taxaw ànd ak nit demul mu yëkkatiwaat lim ko joxoon yëpp joxaat ko ko ndànk génn ci. mais booy léegi ah, dañ lay jox nga encaissé ah, après nga dese. waaw waaw moom xam nga lekkul kenn ba pare gisoo ko ci internet bi mu téye góor. di ko def comme ñeneen ñi nit ñuy def. est-ce que loolu dina ko arranger. non déglu ma ma wax la xam nga mun na ko arranger. parce que euh, mun mun na yokk bësam. mais ñee dañ ko defee yokk seen bës moom defu ko pour yokk dara dafa bàyyi te yàlla tax parce que loolu la ko yàlla sant ba pare tamit bi muy wax ba léegi mus ngaa gis nit ku ne daje naa moom fii ci caaxaan gisuma ko xaw ma ko nag damay wax dëgg rek. d'accord ñu bëri wax kon ñi ngay jël nii xanaa am la ñi ngay jël nii di comparer. Hmm. moo tax sànq ma ne la jigéen ñi nga gis ni comme comme sabar la ñu mel. Hmm. xam nga sabar dafa am talmbat jigéenu talmbat dafa am jigéenu cóor am jigéenu mbëng-mbëng am am na ñu xam ne ay mbëng-mbëng lañ génn gis nga comme booy bi dafa war a génnee kaset un toog na ko sëy bi tas mu toog ba war a génnee kaset génn xas góor pour coller fa sa kaset pour nit ñi xam ni yaa ngi fi. parce que wax ni daa fayoon daa fayoon ma xaw ma daanu miir. Mm-hmm. yii la leen defoon yéen ñii sekku leen ak ñoom yii. li ngeen sekk ak ñoom mooy bu ñu amee ay way ñu way ko bu ñu amul ay way ngeen bàyyi leen leen loolu la rek. d'accord waaw. Euh, euh, ñun li ñu cërale woon si waxtu jeex na takk Euh, di la jaajëfal bu baax di la gërëm ndax nag euh, euh, bi mu la ko waxee rek da nga ni ma carrément amul benn problème ñëwal vraiment yow tamit nga nekk si télé ñuy gis sa sa taxawaay ci saa bu saa bu programme amee wala saa bu dëkk dëkk bi xawee yëngu wala yenn sëy yi nga ciy wax di si indi sa contribution moo waral ñu ñëw yaatal sunu waxtaan ak yow tey authentique prod mi ngi lay jaajëfal bu baax muy télé askan wi nan nga ko jàngatee. waaw maa ngi leen di jaajëfal xam nga lu mag di def bu gëstoo gisul xale la mu yor day naax saay boo leen di def lii ma mag leen man tamit boo leen ma woowee dama leen ko war a yombalal di lan laay def leen dama am beneen njëriñ bu dul ngeen soxla ma ma defal leen lii axar rek loolu la maa ngi leen di jaajëfal yéen tamit mhm. yal na yàlla defal leen jàmm Euh, jërëjëfati mbokk yi doon saxoo di seetaan authentique prod jaajëfal nañ leen bu baax ñu ngi leen di xaar nag ci commentaire yi ku nekk ak ni ngay gisee lépp loo xamante ne xalaat ngeen ko ci commentaire yi muy sama côté muy côté yi muy côté sëy yi am léegi rawatina sax diggante ndaxte ak Mario ngeen indi ci seen xalaat ngeen indi seen gis-gis fépp foo xamante ni bëgg ngeen ñu dem fa ngeen commentaire ko tamit ngeen wax ñu demal leen fa authentique pro télé askan bi muy bànneex muy naqar muy programme bu mën a am authentique pro day déplacé wu dem foofu ngir li leen neex yéen sénégal yi di nuy bu baax a baax waa diaspora bi gàcce ngaalaama jaa ngeen jëf bëgg nañu nag un million d'abonnés balaa décembre bii di ñëwaat incha allah euh, ci caméra bi nekkoon ci euh, maam Cheikh taalibi Serigne Touba moom dafa bëgg Cheikh Ibra Fall Lamp Babul Mouridina ah euh, euh, chéri ki nga xamante ni mi ngi xam mi ngi am 2STV gis ngeen ko yéen ñëpp macha allah euh, à travers des stv à travers série Jama moo tax ñu bëri xam nañu lan mooy cancer nan la lay dale ak bu la dalee nan ngay def ba fajoo ko di ñaan yàlla mu musal na ñu si tamit bu baax a baax di leen jaajëfal di gërëm bu baax a baax ki nga xamante ni tamit mooy ndàgg munuma ko bañ a gërëm. Euh, sama xarit la sama doomu ndey la borom cag-cag bu gaaw bi ci man fu ma bëgg dem ci ndakaaru boo may yóbbu di jaajëfal bu baax a baax euh, yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi doon teewlu sa waa ji borom place bi nu mu tudd waaw ah, One Shop maa ngi koy sant bu baax Ahmed One Shop maa koy sant bu baax di ko gërëm jàngeen jëf quant mois beneen yoon ci beneen émission jàngeen jëf a la prochaine incha allah